jaay ñu dem sàcc waaye ma doom ñu jaay cere waa anay saa cere daal la ni jaay ñu def lu dul yoon ma doom ñu jaay cere waa ñu de alo la ni jaay moo de la ni jaay am na sunguf buy am na sunguf mu deme daal waaw waaw waaw ko baax ñu yónni waa sëriñee jaay la cere may la laa la boole di la ko siimal waaye du ma siimal benn gore waa man ay isaan cere daal la di jaay mu doon ñu jaay waaw ñun de jaaf la di jaay jaay géej waaw ndeysaan ñun de dañuy jaay eba bi ñu eskaay ñu jaay yéen géej waaye waaw ñun de dañuy jaay oha oha palmare ñooñu yónni waaye muy ñu daal ñu dërëm yi jaar ay saan waa palmare ñooñu yónni waaye ñu daal ñooñu yónni waaye jaay la jëre may la laa lo boole di la ko simal waaye waaw waaw simal benn gën a waa palmare kaay leen ñu jaay leen ngeen ji waaye am na géej am na yéen am na tuufa isaan waa palmarin nu nu yónni waaye jaay tufa dañuy jaay saabu waa ñoom de cere la ñuy jaay moom de la ñuy jaay si mat waa waaw ñoom de dañuy jaay day isaan ñoom cere la ñuy jaay dañuy jaay waay waay ñoom de dañuy jaay jaay la cere may la laalo boole di la ko simal waaye boobu tax bu ma siiwal benn ko ne Famille mare 40 et quelques mais dañu formation ño xamantene personnes lañ avons ñu formation bi partenaires, suñuy partenaire Kawtar Wildaf mais nous dañu une suñu ci former comme toujours former plus de 25 personnes

parce que ni ma ko waxee sànq rek yàgg nañu palmarin mosuñoo génn euh, dem foire tey dañuy sant yàlla bu baax bi nga xamante ne liggéey nañu ak waa Wildaf waa ak jëf nag waa Kawtaar ba mën a ñëw teewe si fii ci foire fii ci Pikine Ouest te xam naa gis nañu yaakaar boo xam ne tey jii waa Cices bu ñu ootee sax dinañu mën a dem Cices incha allah. waaw ñu ngi ciy gis suñu bopp bu baax ndax wax naa ko Sank, bu njëkk boobu partenaire bi ñëwagul. ñun dañ doon dem wàcc ci tefes bi yaakaar ci ñeneen waaye instant bi mën naa ne ay nit ñoo yaakaar ci ñun ndax dañuy liggéey di jottali yeneen GIE yi te loolu yëpp ak taxawaayu partenaire bi ci lañ ko mën gis nañ ci suñ bopp bu baax bu baax sax bëgg nañu ay kii GIE yu bëri suñu ginnaaw bëgg nañu ñu jëriñu ci li nga xamante ne waa GIE noonu jël ñu ngi koy jëriñu ci li nga xamante ne waa Kawtar ak AGFON ak euh, Wildaf ñoo ñu ko jox affaire bi dal bëgg nañ ba palmarin ba lu palmarin sax jëriñu ci parce que mënumaa wax ci Wildaf té santuñu tonton Lang mi nga xamantene mom mo indi projet bi ba biir commune palmarin ànd seeg ta Mariam mi nga xamantene mom itam tayiwul benn yoon parce que suma ma waxee aussi war naa citer li nga xamantene partenaire bi defal nañu ko instant bii nii nii indil nañu gaal jox nañu tricycle jox ñu ay matériel lépp loo xamante ne

Minsim na ano, nakonon pa si Mangol. Ines ngid ma, o kautar, jefen, pa wildaf. Na, ingid ma din napah. Ingid ma din ina iningid ma din. Bisa ni dain bagaz mayu. Idane dan dai yokwa. Ah, jarang enjef. Ingid manun de. Hmm. Ah, tamarem ngid mama paha paha paha paha kontan na wo ah, ah nuno kay grup la nun fop ah ngid ma nun ngid ma dan dana pop no varo fotule ca jara ngeen jef ten dayu bi jen jën la dañ koy was xorom ko nebal ko rahasat ko legi wer ko bamu wow nga def ko ci say pañe ambale lii yéet la léegi yéet bi bu ko ki bi indee gaal gi àndee dañ koy jël nëbal ko buñ ko buñ ko nëbalee ba pare nga raxas weer ba mu wow nga àmbale ya lii keccax la waaw keccax bi moom bu ñëwee yaboy bi da koy jël dugal ci sa fuur da koy dugal ci fuur bi lakk ko mu boo paree jël xolli xorom weer tuufa bi mom dañ koy toj bu ñëwee dañ koy toj dindi xori coquillage bi nekk ci kaw dang koy dindi léegi boo ko dindee nga dugal ko ci bassin bi boo jëyee dugal ko ci bassin bi def sa ndox raxas weer mom duñ koy kii léegi boko ko weeree ba mu wow nga àmbale waaw ku ci bëgg a jënd numéro téléphone baa ngi nii 77 451 33 64. est-ce produit yi dañ koy yóbbu ci marché yi di koy jaay. produit yi waaw dañ koy yóbbu ci marché yi di ko jaay dañ koy jaayaat ci village bi it waaw. est-ce que am nga possibilité di ci supermarché bëgg nañ faa yegg nag mais demaguñ fa. waaw waaw léegi dañu ñoo dañ koy ay teenu xorom lañ ay puits de sel lañ am léegi puits de sel yooyu dañuy fay ay nit ñu di ñu ko gasal. biir permanent mais dañuy fay ay nit ñu di ñu ko gasal bu ñu ko gasalee léegi nga bàyyi ko benn durée ndox moomu génn noonu day dem ba wow doon xorom boo woowee doon xorom nga ut say pañe dugg ci biir di ko for boo foree boo paree. nga du sol si say saako mbaa nga couvrir ko ak bâche